président Macky Sall jeexalagul ak yéen doyalagul ak yéen moo tax tey on a vu toutes les composantes gis nañ fi des diplômés d'université gis nañ fi ñoo xam ne amuñu woon chance u jàng des charretiers ñu yàgg na a comme des marginaux je puis vous annoncer li leen Pape Malick wax le programme de tricycle dinañ ko mettre en œuvre parce que politique d'urbanisation àndul ak ay charrette yuy daw en ville incha ce programme sera déroulé et mis en œuvre je ne parle pas des autres métiers la coiffure je ne parle pas d'autres métiers Je pense à la pêche. Je pense à l'agriculture, sur tous ces métiers, à l'artisanat, sur tous ces métiers. Le PAP 3 ans mooy programme bi nga xam ni président am na ko yéene def ci juróomi at yi dina ko jël en charge ñu def ci li ëpp li nga xam ni def nañ ko ci léegi on n'oublie pas les musiciens On n'oublie pas les artistes. On n'oublie pas les musiciens. On n'oublie pas les artistes. On n'oublie pas les sportifs. En un le président Macky Sall a besoin de toute la jeunesse. De toute sa jeunesse. Oui, ci nga bokk. yow ci nga bokk. kii laa wax yow mii yow ci nga bokk yéen la ñuy liggéeyal yéen moom li ñuy def jeex na noonu la li ngeen wax noonu la li ngeen def noonu la Pamalik bilan bi jaratu la wax bilan bi wane na boppam mais je veux vous dire je veux vous dire yéene bi président am gouvernement bi war ko exécuter et je m'engage en tant que premier ministre à faire exécuter les directives bi président tous les objectifs assignés par le président la République seront intégralement réalisé waxuma ko pour campagne bi ñu nommé gouvernement ba tey dañoo ne tekk di gëstu mbir mi di ko xool bi ñu président ne wax leen ci xëyu ndaw yi ma ne Pape Malick du rapport du compte won ma ma gis am na waykat bu ko doon wax won ma ma gis Pape Seck Pape Malick won nañu ñu gis incha allah incha allah nous mettrons des moyens sa disposition nous l'encouragerons et nous l'aiderons à réussir bul bàyyi benn catégorie Oui, AGTIP pour les projets d'intérêt. L'AGTIP sera soutenu davantage. Niligayek Promoville. Oui, Promoville sera soutenu davantage. Niligayek DER. DER sera soutenu davantage. Je n'oublie pas Ninekti Sécurité, Ninekti Sport, Ninekti Artisanat. Je vous remercie. À la prochaine. Maintenant, maintenant, maintenant. maintenant maintenant maintenant li ñu def fii li ñu def fii dinañ ko def dans tous les départements dinañ ko def dans tous les départements wane li nga xam ni moom la ñuy def mais surtout wane li nga xam ni yéene di président am ci réew mi ñu ànd liggéey ko ci jàmm ak salaam je veux que population wu Parcelles profitant de cette occasion ngeen xaar tuuti rek tuuti rek ndax waa Pikine dégguñu ma waa Point E dégguñu ma nga ne wax fii fii ngeen bëgg assurer la paix ici, la sécurité ici. Nous allons faire des Parcelles Assainies de Dakar, du Sénégal, un pays émergent, une région émergente, un département émergent et une commune émergente.